waaw salaamaaleykum gars yi maa ngi jaar cappaatuli bi la maa ngi nuyu ñëpp gars yi di wax nag bis bu mag bi incha allah le 25 lay doon le 25 novembre stade Iba o face à face Tapha Tine Boy Niang allah ñu jox ñëpp rendez-vous gars yi foofu ah képp kuy cappaatuli foo nekk gaan ah Pikine lay déparé bis ah. bus yi kaar yi njaga njaay yi sereer yi mooy loolu vélo yi pétin yi yëppay dem gars yi ah incha ñu wax ñëpp ñu jox rendez-vous foofu cappaatuli yëpp yëpp yëpp yëpp bàyyiwuñ kenn yëpp tëlu mag di diis i ko taaf cité pépinière cité 1 2 3 waxi naan 1 2 3 bàyyiwuñ kenn mafia yëpp gars yi ah tëngeet barñi gars yi mafia bi bàyyiwuñ kenn ñëpp nañ ñëw ñu takk corona bi ah ci jàmm nag ak salaam non violence jàmm ak salaam gars yi ah ñu dem def ambiance ñu def neexal def fula ak fayda ak joma ah. bu jeexee rek dafay jeex ndaalaan bu dofe rek naa na koy faj waaw dafa leer ah! salaamaaleykum gars yi ñu ngi woo ñëpp le 25 novembre ah. Iba Mar Diop feesu fees Tafatine Boy Niang le cinq novembre incha allah ñu ngi ci woo fan si yëpp di ci woo am di jàmm yi xam nga ñu teel a ñëw dix-huit heures ñëw fees stade bi xam nga Tafatine ñëw defati différence incha allah. Eh, ñu nuyu waa leen bu baax a baax bu internet yi ba léegi ah ñu ngi kër Matar Ba ci événement bi la ñuy topp ba léegi ñu fekk beneen daanaan ku nga xam ne boo wéyee bu neex. bu ñëwee ci stade bu neex daanaka ñu bari bu ñu demee stade sax moom moo tax jëmm ji moo tax ñu ñëw ñu naan ko Mbaye ak Loum Mbaye maa ngi lay nuyu bàyyi la nga nuyu internet yi. waaw maa ngi lay fay soxna si di ziar ñëpp di ziar waa Lutte TV di ziar ak lu làmb di ziar aussi waa kër gi nga xam ne ñoom lañ fekk muy waa kër Matar Ba di ziare waa arrondissement Fimela yëpp di màggal ñu. ginnaaw bañ la nuyoo ki nga xam ne mooy Matar Ba daal di woote nga ñëw ba relation nga am ak Matar Ba. waa relation bi de presque sax xaw ma ko yàlla ak Chérif Fall. parce que seri moom moo woo fan yéene daa bëgg daal nga defar ko benn cassette boo xam ne da koy campagne bu campagne yi ubbee allah relation bi daal noonu la mu jox ko sama numéro mu woo ma ñu jokkoo tey aussi bi ma egsee ñëw na ba foofu seet si ma pour ñu fa sante kolore daal waaw mu daal samp na fi nga xam ne mooy mairie film laa lan nga koy wax waaw li ma koy wax daal mu jàpp rek ndax affaire bi moom nekkul nekkul si loxo yi kenn ku ko yàlla may rek kooku moo koy jël nit nag boo gëmee sa bopp rek loo bëgg da nga koy am te gëm naa ne li ma bëgg dina ko am da li ma gis ci xar kanamam xaw ma ko nag exactement mais li ma gis ci xar kanamam mun na am lu ne waaw su ñëwee ci li nga mooy ci mbayang lum ñu dellu siwaat bu ñu génnee ci nga xam ne mooy Matar Ba mbayang lum bi nga duggee ci làmb ak léegi hmm. saison bi sal ren wax këbit bi jógee fi nga ñëwaat bi nga ñëwee lan nga yëg bi ma jógee bi nga jógee ci Covid bi ñëwaat ñun ubbiwaat làmb yi ba nga dugg si waat sur scène lan nga yëg. waa li ma yëgee nag kontaan rek parce que kontaan lañ mën a wax parce que ku toog presque deux ans lay wax euh, liggéeyoo euh, te euh, yàlla daa def ñun làmb ji moom lañ def métier. kon boo toogee deux ans liggéeyoo daay metti bu yàlla defee nag ñu dem ba ñëwaat au retour dañuy dañ koy sant suñ borom daal te xam ne aussi lépp suñ borom la rek. loo gis si àdduna day am cat yal na doon suñu njiglaay ñun ñëpp aussi te yal na bu benn feebar ñëwati ci réew mi. ñu gis nga xam ne mooy mbayang num bu dugg bu mbëri dugg see su mhm. mbayang yuuxoo rek mbëri yëpp a yëg seen bopp da xam mhm. mbëri ku ci nekk fa nga koy jàpp wala affaire boobu ci mbayang la nekk. waa noonu la xam nga ñun ay séeréer lañ te euh, mbër euh, yu bari boog ay séeréer lañ mhm. te séeréer sidit da koy yëngal. li ko yëngal nag ci làmb ji la mooy woy woy moo mun a def loo mbër loo xam ne nit foogu ko sax te ku dul mbër sax woy da koy def loo dara loo tax aussi ñun bu ñu gisee mbër yi dañuy dem si li nga xam ne ñoom loolu lañ bëgg ñu fekk leen si li ñu bëgg defal leen ambiance defal leen li ñu bëgg ñu def lu ne daal. Mm-hmm. Ah. ci li ngay bàqee mbëre ci séeréer boo ñu ko doon tënkal ci olof lan la ci lan la ci lan lay tourné. loolu moom daa bëri moo tax du mënuñ ko décortiquer. maanaam ci séeréer la mën a yem. ah waaw ci séeréer la mën a yem <laughs> ci li ñuy wax nag mooy bu ñu gisoon rek mbéy mi te ñu wax ci nga xam ne mooy digganteem ak yaayam. Uh-huh. di Ndeye Fatou Adama Diallo seen ah. relation yi ñaar ku ci uh-huh. nekk ñu ngi naan supporter yi ñoo leen jaxase ñi naan ñu ngi ànd ñu naan Euh, képp koo xam ne yaa ngi fi di liggéey ki nga bokkal li ngay liggéey ñu bari dañuy foog ne da ngeen di noonu te fekk parce que yaa nde faatu man bi ma ñëw groupe yaa xadi boobu xaw foofu laa ko fekk boo ba muy woy xaw ma sax ne dinaa woy boo ilaa boobu judduwu ma yàlla daf ma ñëw fekk leen fii moom ak ay moromam kon jàmm rek lañ seq mosuñoo xuloo mosuñoo xeex mosuñoo wax ay wax yu ñagas mais euh, dañ am jamono ju ñu toll nii fan si daa am ñoo xam ne daa am lu ñuy foog te xëy na lu ñuy foog du am léegi temps day faatu amul jot man aw ma jot parce que lii du jot kii day nekk fee kee nekk fee mhm. mais terewul ñun dañuy déggante ku si am sa programme boo xam ne sa programme man bi ma tuddee drapeau daaw temps day faatu daa ñëw ñu participer mhm. daawati jeeg fayambooj dafa ñëw ñu participer kon ñun ñëpp benn lañ mhm. euh, benn réeroo amu fi ñi nekk si tuusi nag ñun mënuñoo mënuñ mu tere ñu wax parce que artiste nag ak wax ñoo ànd képp ku bañ ñu waxal la rek doo doon artiste. yow en tant que porte-voix ban message ngay lancé instant bi ban message ngay lancé pour ñi wax naan ñi ñi fee wala daal pour man moom wax bu munti doon euh, polémique kenn mënu koo bañ mais man daal wax ji nay rafet loolu rek laay ñaan mm. wax ju rafet rek mm. parce que loolu lañ fi am mm. du ñu wax ak moom nag ba tàggoo te du ñu may dara lan ngay may mbëri ñi seetaan xaw a yëngu tuuti loo ñuy may. ah loo ñuy may. yéen waa. waa Leewtoo TV. <laughs> yéen waa Leewtoo TV. mbër yan. mbër yëpp mbër yëpp képp takk ngemb. e njom doole feso góore e kalay ma Sénégal e njom séeréer jegun. e njom doole feso góore. e kalayma sénégal e joom seereer njegoon e joom doole e kalayma sénégal e joom seereer e joom doole fesogore e e joom seereer e joom doole e kan layma e sénégal njom séeréer jegun e njom ɗoole feso gore e kan layma e njom ɗoole feso e kan layma e sénégal e njom séeréer jegun e e kan layma sénégal e moyto imbirese a geno xa sipo mam lamto njambar e moytooxi mbire sey a geno xa sipo mam lamto njambar e moytooxi mbire sey a geno xa sipo mam lamto njambar e moytooxi mbire sey ageno xasibo jande mam lam to mata bani yonta bo ngel ne fimla meri faye mata bani yonta bo ngel ne fimla meri faye mata bani yonta no ngel ne fimla na meri faye mata bani yonta ngel ne fimla meri faye mata bani yonta no ngel ne fimla na meri faye mata bani yonta no ngel ne Fimela bo mairie faye Matar ba yontaan o ngel ne Fimela na mairie faye Matar ba yontaan ngel ne Fimela bo mairie faye Matar ba yontaan o ngel ne Fimela na mairie faye Matar ba yontaan ngel ne Fimela bo mairie faye Matar ba yontaan o ngel ne Fimela na mairie faye Matar ba yontaan

yàlla yàlla def jàmm yàlla tàppe xol yi ba ñëpp nekk benn daal macha allah. jaajëf am mbay lool merci beaucoup. waaw salaamaaleykum gars yi maa ngi jaar Capa Thioly bi la maa ngi nuyu ñëpp gars yi di wax nag bis bu mag bi incha allah le 25 lay doon le 25 novembre stade Iba Mar face à face Tapha Tine Boy incha allah ñu jox ñëpp rendez-vous gars yi foofu ah képp kuy Capa Thioly foo nekk gànnaar ah. Pikine lay déparé ah. bus yi kaar yi njaganjaay yi mooy loolu vélo yi pétin yi yëpp ay dem gars yi ah incha allah wax ñëpp ñu jox rendez-vous foofu capaacu la yëpp yëpp yëpp yëpp bàyyiwuñ kenn Pikine gi yëpp tëli bu bees tëli mag di di si ko taaf cité pépinière cité 1 2 3 waxi naan 1 2 3 bàyyiwuñ kenn mafia yëpp gars yi ah tëngeet barñi gars yi mafia bi bàyyiwuñ kenn ñëpp nañ ñëw ñu takk coordonnée bi ah ci jàmm nag ak salaam non violence jàmm ak salaam gars yi ah ñu dem def ambiance neexal def fula ak fayda ak joma ah. bu jeexee jeex ndaalam bu dofee rek naa na koy faj waaw dafa leer. Ah! salaamaaleykum gars yi ñu ngi woo ñëpp le vingt cinq novembre ah Iba Mar feesu fees tafaatin Boy Niang le cinq novembre incha allah ñu ngi ci woo fans yëpp di ci woo am di jàmm yi xam ñu teel a ñëw dix ñëw fees stade bi xam nga Tafatine ñëw defati différence incha allah.